war rek la def voilà. mënu ngeen ko bañ a def comme def ngeen ko dama leen ciy sant mon papa dafa am nag lu ma la bëgg a laaj. Hmm. ki ne ma ne dama ko bëgg a takk ñëw ci yow ñaata laa la jox. yow deux millions. ok hmm, laaj ndax deux millions yi moom ngeen ndax moom lañ jox wala déet. yaa ngi seen yaay. non non. Hmm? attendez papa attends attends man joxuma woon sama xaalis sama nijaay. Ah, yow laa joxoon xaalis parce que yaay sama kilifa te neewoon nga su ma joxoon keneen xaalis bi sax doo dem. comme yéen daal yéenay sama kilifa. waaw euh, lépp seen loxo laa koy teg. Ah. sama papa Thiam nag laa gisul sax. waaw déggante nañ téléphone nee na après dinañu rejoindre. waaw baax na waaw comme sama nijaay gi ne comme mooy ñaan. Mhm. Euh, yow yaay kilifa. jotaay bi. Mhm. donc deux millions yaa ngi. déet ba ñaan yow it. ñaan ak kiy joxe du benn déglu ma. non maay ñaan ñu may la yow jabar ngay ñaani man maay joxe loolu loolu la ñu wax. ah waaw maay joxe noonu noonu la demee ah. ki joxe ki ñaan du benn ah. xanaa mosoo ñaani. ay yow xanaa mosoo benn waaw noonu la demee du dëkk façon lu ñuy joxe la kay mm-hmm. jarul xëccoo lii daal yaa ngi sugg teg sa baay fa mu tegoon tànk lépp dana leer ñeent laa yor dama leen a teral ba seeni waajur kontaan mm. ñañ ñaani woon imam bi dañuy waaji fu mu dëkk ba yaa ngi dégg ñu xamal ko ni soriwul fii rek la dëkk kon yaa ngi dugg sugg nag mën naa sax ci tànku góor jigéen kenn amul njëgam lii du tere deux millions du tere jigéen kenn amul njëgam sa nijaay ji xam na li may wax ndax denc na soxna hmm? donc jigéen loo ko mën a teral du doy bu soobee yàlla dinañ dem ba ñu xam ni bàyyi nijaay bu ñëw na ak beneen bàyyi bu muy càmm ñëw nañu te ñëwal nañ seen doom dinañ def li ñu war a def jënd yu sew yi ñu war a jënd yëpp jox ndaw si waru garam lépp may gu njëkkam ñu takk ñoom bu ñu jàkkaarloog ñun dinañ xam ne ay kilifa la ñu jàkkaarloog bu ñu muuree jox na ñu muur jël yóbbu hmm. waaw bu soobee mbir mi daal waaw. noonu daal am kontaan bu baax a baax. lii hmm. du hmm. dara jigéen kenn amul njëgam. kon baax na dinañ dinañ dinañ gisee. dinañ dinañ gisee dinañ bàyyi ngeen gisee yéen waaw. ma jox la cër bi parce que benn waajur laa am yow la bu góor ma jox la ñaari million ni la papa ñaanal ma jabar ñaari millions yi nga fay joxe su ma demee ba ci biir dégg naa ne cinq cent mille nga fa joxe ni leen bu doyul woo leen ma ma dolli beneen cinq cent mille après nga dolli beneen cinq cent mille muy un million gëmaguma kenn. yow nag laay déglu ndax ñu wax ñépp yaa leen féete kilifa ma doon laaj loolu nu mu demee. loolu nga wax loolu c'est vrai moom lañ fa joxe waaye dafa am nu mu deme keroog danga doon jékki-jékki ñu ni la sa papa ak sa nijaay police jël na leen fan doon ñaane sa nijaay poñe na ma fa saaga ma ba dóor ma ni ma ñii bu dafa yebaate. lan moo tax muy jël jigéen di ko jox lii ci xaalis. am na loo xam ne du ma ko wax ci kanamu xale bi ndax fekkewul démb. bàyyi démb déedéet dañuy ñaani. déet da wax sa biir wax. nga ne ñeenti soxna yi nga def yëpp da leen teral. waaw. Euh, li ma leen jox soxna yi pour takk leen da nga ko xet yonent bi nee na boo amul dara sax compal suuf jox leen mbay gu njëkk la. sallallahu alayhi wa sallam naa leen. mais bu fi jaayu. de jaayu ma dama bul jaayu. jaayoo nga ko gis lii loo ci xalaat ah lu ma ci xalaat dégg bi wax nañ dem jox leen def yu sew yi jox jox li ci def ñu jox ko ndaw si bu dee un million bi ñu takk soxna ñu muur ko indi lool la ñu wax de comme ñun ñaar la ñoo fi mag loo ci xalaat yow. ok baay ah? léegi ñun dañuy dem noonu rek jël xaalis bi daal di jëlee njébbal daal di wanewaat gannaaw ak ay loxo yi neen. dit waxtaan la ma ak yow loo ci xalaat loolu laa wax. ñun du ñu am quote encore problème am na ci ah kon keroog bi ñu toogee fii li ma daan kàll yëpp yaa ngi may soog a jëli wuy ma rek ndax yaa ngi may soog a jëli kon. dama doon sóob rek. gos <laughs> bi c'est un imbécile un million nga jël dem di ko jox jigéen nii kër gi nii suba buñ duñu taar reer ku koy def un million doy na fa sëkk. ma ne la ah tiital ka ci euh, yaayam. waaw moom la jël moom la jël. non man dama def ni dañoo euh, biñ ma ñëwee présentation bee baaxuloon mais yow mën na noo def. Euh, man daal ni ma ko xalaatee. Hmm? ndax gone gi ni ma ko jànge mooy euh, ki mu wax ne moom lay jël. waaw famille boobu xam naa leen. waaw ñooñu soo fa yóbbuwoon cinq cent mille sax sabar la ñuy maye ndax mosuñoo gis lu ni mel. kon gis nga ni cinq cent doy na. déet nañ ko def million. ñu jox leen million. nañ ko def million beneen million bi. waaw ñu xool après nu ñuy def rek. <laughs> montre yu baax yu bokk wër. lay <laughs> maay sa buur waaye jaañ doo nit. <laughs> maay sa buur waaye doo c'est hmm? un imbécile deux millions lañ jëm di jeex na man na xaw ma fan lañ toppee yow daal amul benn problème wuyu ma ab naa la ko bëgg bi may ñëw ah. am naa yitte boo xam ne dama ne woon sax xaw moo ni lii daa fi jële sax waaye am naa benn yitte boo xam ne dama ah. ne woon dinaa ji waxtaan ak yow muy ban hmm? sama miir ba dafa daanu maa mënul maa matul tonn ciment matul tonn baa déet man kay xam naa nag li ma fi jëlee moom dana ëpp tonu si waaw ah cinq cent mille dax naa buy comp caam lañ ciy compar rek li ci des yëpp ñoo koy ban caam sama rakk caam sama rakk bàyyi la ci moom déglu ma bàyyi la ci moom moo gën a kooñ moo gën a kooñ ñëpp déglu ma sañ na fa ànd yow yaay bàyyam maay ndeyam waaw loolu dam na waaw nga dégg de moom de genn dong la ci ah waaw <laughs> man la moom daal moom sax dina xam ni ku la magal a pisagar xamul lu ko tardé loo sax ba mu naan dinañu leen <laughs> ma ne ko mais xaalisam na moom la koy jigéen amul prix jigéen loo ko yéene may ko ko mu ne ma wax mu ne ma gën a ma cooy sama jarbatel wax na la ko ba ma bëgg écart ñun ñun tuut nañu foofu sax dóor poñe na ma te bu ma kii woon may dóor dóor na ma sax ci dënn mais man damay calmer ndax waroo dégg ni ña ngay ñaani jabar ba police jël si ñu fa te looloo naroon na lu musul am ña ngay ñaani jabar police jël si na leen looloo naroon na def xam nga may wax mu foqati xaalis sama loxo foqati la la def xaalis bi may jàppante moom mu yëkkati cinq cent mille jox leen ko yaa ngi dégg jox leen cinq cent mille bi ma xam ne ñaaw na ma calme jeu bi ni leen lu ngeen am ci problème rek wax leen ma ko ndax sama doom yéene na leen ko bi ma demee ba ñëwaat xamal naa leen de un million bi laalaatuma ci dara de sama cinq cent mille laay ko du ma moomal sama bopp dem joxewaat ko du un million ba de ma moom naan ma boo bëggee ñu def nii ma ne ko man xaalis bu ñu ma du ma ci laal séddoo ma xaalisu jàmbur naan ma nañ séddoo ci pàcco ma ne ko pàccoo xaalisu jàmbur nañu xaar eh, man ko nañ xaar càmm ni du fi ñëw goos bi lan la lu tax ñu koy xaar ñu ñooy kilifaam léegi man sama cinq cent mille sax laa yëkkati joxewaat donc te yow waroon naa la jox euh, cinq mille waroon naa la jox cinq millions donc dix pour cent yi compté ko ni dem na foofu déjà ndax sama xaalis laa joxewaat fii ci cinq millions ma la waroon joxe mbir mi nii la demee yaa ma ne woon sa nijaay nee naa la ajowul muy dem nga ne ma sama nijaay la moo bokk sama yaay de dem loolu la fa def. Ah. mosul ñu dégg ñu dem ñaani jabar dem leen fekk leen police. mais ah, bii lan loolu la waroon dégg. Ah. naa li ñu mujjee dégg xam nga lu muy doon ñaani leen jabar ba ñëw nañ dem régler problème bi police. ak moom. ak ñi ma joxoon sama xaalis xam nga lan la papa parce que fois gis nga yenn waajur yi ñooy tax seen doom yi ñàkk yenn civilité yi parce que dafa am lu ñu yare surtout suñu société au Sénégal doom ak nu mu mën a mel da nga koy jàppe noonu nga koy warmal da nga koy jox gëddëm da nga koy respecté ak nu mënti mel mais des fois waajur def loo xamante ni dina pousser doom mu wax loo xamante ni mën na ko regretter toute fii ma yegg foofu sama nijaay du sama waajur sama jaay joxuma ko samay deux million sama nijaay yónni ma ko woon moom rek kilifa laa jël jox ko ñaari million muy yow papa. waaw wax nga nag sa scénario wax nga sa mise en scène def nga lépp. loolu ah, oh, dafa garaaw sax naan famille bii nu mu fi mën a jógee dinañ jox deux millions. ak nu muy mën a doxalee ci famille yi. kon ko mbëggeel moom féetewul fenn ah. mën nga fekk sax ku dëkk ci ay ay ay kaas ak yu kenn xamul ay ñax sax nga bëgg ko. kon ngeen joxe. ah man de cinq cent mille sax sama cinq cent mille nga moom un million ma nga ca moom nee na bu ma bëggee pàccoo ma ne ko pàccoo ma xaalisu jàmm. waaw waaw daal la dem. papa baax na vraiment baax hmm? man sax dama ne woon dinaa lijjantiwaat sax ça va waay ah. yaa wax ak sa nijaay waaw. tonton Thiam. Saamu yaa ngi nii. voilà très naa. bi ma affaire bi jàpp na. la li la waxoon rek moo ci ne umu yow da ngaa dëgër bopp lii yàgg naa la ko wax ah jógal jógal nga te xamoon ne sëy dañ koy ñàkk sëy dañ koy ñàkk ah mais la preuve mi ngi ni tey mi ngi ni tey indi nañ la wujju yàgg naa la ko wax nga naa ma tonton caab dee tonton caab nii ah, te kii ma la yóbbu moom ah xale maam ci kaw lu leer laa la wax nag billaahi li ma la waxoon di ko gis tey xoolal du gis nga leen ñu ngi ko jël teg ko ci kaw di ko neng nengal niñ ma defoon rek bi may dooru ñëw waaye moom comprendrewul xamul ni ñu ci kër gi ku ñu daggal tubéy ku ne ngemb laa lay xaar du ñu ngi koy neng nengal mu yaakaar ne moo ci nekk buñ koy mbas da koy bett. kër gi këru jaam la man maa la wax lii baax fi ñoom ñëpp a yem gis nga billaahi dafa xamul li xew. <laughs> comprendre bis bu ñu koy xëy di ko ba <laughs> ah ah billaahi da koy bett. bàyyi ko ci biir kër gi rek muy def li muy def rek. man de bu woon fi nga ma yóbbu nii boobu ba tey ma nekk ci comme ba tey génne nañ ma kër gi. waaye xam nga yaay sama xarit ci kër gi moo tax ma yow douce la ñuy doxee kenn ñu lenn bu ñu romantee ça va mu mën la ça va tonton Thiam pare kenn sibul sax action sama diggante ak yow comprendre ñu. gis nga moom li nga sa combat la c'est un combat de gladiateur dañ koy xeex xoolal xoolal yow nag bul bàyyi. te lépp loo ciy def rek xoolal def ko en douce buñ la xamal dara bis bu ñu xamee ni sax maak yow ñu ngi seq ñu ngi wax ah su subaa ñu yóbbuñu. ñii baaxuñu de. ñoom ñëpp a yem ñëpp surtout nag amul kii amul kaa surtout nag borom kër gi moo gën a doy waar. Ah. <laughs> ce vipère là il est mauvais moo gën a bon ci kër gi te nee na yee moom moo diriger kër gi <laughs> te diriger wul dara doom ji moo diriger lépp ah il est mauvais sa balaa lépp lu fi am rek te moo ma xamal benn affaire te dégg ko tey est-ce que tu sais que buum mi moo ko takkal jabar. naka xamoon naa ko. xamoon naa ko de gis nga bu takkum jabar nekkul sax ci xelam lii ay mbiri papaam la ali baabu ko mënaan xamoon naa ko. déggoo li ma la wax xanaa du début à fin xam naa ko ci nopp booy bi la topp takkal jabar umu baaxul umu li mauvais takkal jabar umu baaxul benn jour sa intervenir naa ne ko ba bàyyil bàyyil doomu jàmbur ji nga sex yàbbi ko mais ba dafa dëgër bopp def na tout ba takkal na dëkkal na ko jabar mais dina ko gis tey. waaw takk na ko nañ xool koy consommer. xoolal duñ leen may dara lu ñu wàq ñu suul en douce rek nii rek. yow daal loolu laa lay wax xoolal buñ la xamal dara. Ah, man moom sama côté ñi ma wuñ ma sax ba di ma tudd naan ma ca xoolal ku ma tudd nga xam. léegi daal di ma la waxoon rek moo ci ne xoolal léegi dinaa dem dinaa envoyé xaalis bi sëriñ bi hmm? dinaa ko envoyé mais nag xamal benn affaire da nga dolliwaat. daa dolli. lii doyul de. jeex na tàkk. ne ko. na ko gën a jàmm rek. muy gën a saf yow dugg rek maa ngi ñëw. bu ñu bàyyiwul du ñu bàyyi. ba ci kanam ok baax na voilà. waaw oh. mu mm, ple woon ni bu dafa takk ñaareel te man dama ci am déception ba mënuma wax mësuma xalaat ni que ni buub tànk yi sama papa nekk moom dina dox ba nekk ci même tànk yi parce que buub waroon na jàng ci sama papa yor ay jabar te yemalewu mënu leen a yor mënulu leen dara di tax di teg bu pour man moom xalaatam yeggoon na feneen lu dul dem di takk ay ñaareel di ñëw ak situation kër gi ni mu deme Xadi dafa mel ni yow dangaa desee comprendre Xadi bu su naru woon takk ñaareel man sax maa naan ko mu takk ñaareel waaw jabaram baaxul. yow sa jëkkër nan lay amee problème nga won ko ginnaaw ba nar a génn kër gi xad yow yaa ma gën a xam ne umu lu mu def yow bu doon yow la doo ko def bu nag lii mu def bu ko buggul woon a def sax dina ko def ndax amul jabar ju baax man nag ànd naa ceeg moom. waaw aw loolu tax na ñun ñoo war a xoolaat suñu taxawaay ci kër gi. Mhm. parce que tamit waratuñoo xaar ñoom ñu naa ñu def leen lii wala def leen leen ndax ñoom ñi taluñu kenn seen bopp rek lañ tal gis nga tey jii nii buñ leen seytaane ñun moom waxuma suñuy wax kër guñ dem sëyi dinañu delloo si waat mu bëggoon bu ñu xëyee xëyatee ñu jàpp ci liggéey bi lépp lu ñu mën a def rek ñu def ko te bañ leen cee xaar. Xadi loolu moom boo ma ko waxul woon sax maa la koy njëkk a wax parce que xalaatoon naa ko parce que liñ nekkee tamit ñun du du yoon liggéeyu ñu defuñu dara te ay mag lañ ku ñu mayee ñu sëyi. man nag damay liggéey mais dinaa xool sama emploi du temps nu ma ko mën a gérer soo defee lii ma def lii man moom ànd naa ci ak yow. am problème man dinaa la déglu xeloo loo décidé rek ñu defee ko noonu. kon yow loolu moo tax man tiit naa sax bi nga commencé wax yow da nga yóbbu sama film. <laughs> loolu laa doon doyee. waaw tey duñ génn. Hmm. nañ dañoo gëj a génn ma yow. Ah, <laughs> mën naa ko mën naa problème man je suis partante. ma am naa ko mën naa ko te dinaa ko def ci yow xanaa yaay sama doom baay. jeex na <laughs> waajal ko. <laughs> lool de sa ongle yii lii mën nga cee liggéey. aw mën naa lépp bàyyi ngay def. Ah, xam nga la laay bay ma yee la fajar nga may buux wala nga may woteel kaa ci kër gi. yow yee ma doo ma mere. ma la man engagé de yow toogal ko. <laughs> Ah, waaw kon da ngay préparé wu si kanam. ah waa madame ah man bëgg naa lii. jéeg da ngay xajam bari poussière man bëgguma jéeg bu ba bëgguma daal jéeg yu mel nii man nii laay wër gis li waaye li nga soo wër lii lan la ah macha allah jéeg jàmm ak njëriñ. ah tey nag wootaay bi mooy jotaay bi du jotaay leen sa soxla woon la rek mhm. ndax euh, xam nga wolof njaay dani sëy yu xale a ci jàpp mhm. da ngay doog a dugg nag ci néegu sëy te ku la jiitu ci néeg bu la na moo la mën a wax eh baa la baax nga toog ne du dëgg mhm. mi ngi noonu nag ma bëggoon ma benn waxtaan bu sew ruuj bu ma amanteeg yow benn ay kii la rek conseil la rek du dëgg xaw la conseil tuuti ci sa ménage xam nga da ngay doog a buy say buy doog a door premier ji la wala marqué empreinte am pirip si jëkkëram gérer sa jëkkër moom sa jëkkër xamal ko lu ko jigéen musta xamal loolu na faw nga def ko faw nga vulgaire di ma déglu nag attentivement jëlal ma sa xel beeg sa xalaat yëpp teg ko sama dénk ma ko ma kot ci la naa la kanam ginnaaw la yaa ngi may dégg Birib nag sa jëkkër sa jëkkër macha allah gis nga ko ni mu mel dafa bëgg biiram lekk bu baax la bëgg bëgg ay sauté ay affaire yu baax fruits yooyu yëpp da koo bëgg danga koy gën di jënd nag di ko jox ndax moo ko daan li boppam di ko def yaa ngi may dégg mën na koo jënd moom ndax xam nga góor bu bëggee lekk dafay ñeme dépense macha allah sa jëkkër ñeme na dépense lu ne lay jënd di ko indi si frigo yi waaye nag dafa yàlla dafa defoon mu am jéeg bu xamul utilisation bi te yow gëm naa ni ma la gisee nii xam naa ni di nga xam noo koy gérer jox sa jëkkër mu lekk ba suuf naan ba màndi wax wax ju neex kafre góor dafa bëgg xoolal nga koy bégal kafre du dëgg bu guddi jotee nag macha allah tubaar fa kàlla ah néeg bi nag jigéen da ngay mën néeg de gis nga sëy du ay togg añ togg reer néeg ba nag c'est très important kam la ma waxoon surtout lal bi gérer sa jëkkër say nuisette yu baax say astuce yu baax yoom carte ñoom bulo dee fois nga woo ko bulot ak moom néeg bi nga jël dooso rek indi ko ne ko dama soppi jëli dooso indi ko luyee ko teg ko ci kër gi def ko bu boîte de nuit ngeen baal soirée bu la neexee nga mbalax bu la neexee soirée discothèque loolu jéeg du koy def de ci néegam def ba mu baax nuisette yu baax yeeg ñoom yu baax yi moom loolu man man jël naa samay responsabilité jàppalee la ko dugal la samay ruq du ma la nëbb sama dara ah damay da ngay sëy si kër gi sa goro laa de waaye dama lay wax sama yu baax man ni ma téewee sa goro bu góor bi muy baax dama la koy jox de gérer sa jëkkër ji ndax xam naa ne man ak yow mën nañoo def dégg nga ma wala déggoo ma. waaye dégg naa la kay. Mhm. waaye sa njëlbeenu wax danga ne. Mhm. ma xamal ko moom lu mu xamul woon. Mhm. waaw man su fekkee man xaw ma dara nan laa koy xamal lu mu xamul woon. mais fii kenn xamul dara. loo jàngul doo ko tariti. ah waaw loolu moom ma war a jàngal moom mi ñu ma njëkk ci biir néegu sëy. kan moo la jàngal waaye man mi nekk jànk xaw ma dara. nu ma waa jànk ba si yow dëkk bi jànk nga de la. mais dama ne la dëkk bi yow nit ñu baax ñaa ngi fi du yàlla may na la ko xam dara man mi fekkoo ma may sëy sama sëy kon yow li ngay def papa bu nga bëgg ma def bu lu ko raw na xamoo ke mag la yi fi mag laa koy def troisième âge laay dem ak moom yow première âge bi laa la jox na dama xam première xam deuxième xam troisième yow na yàlla dafa dogoon ngay sëy première âge dama la jox première âge bi maa yaatu. waaw mais man man sama problème mooy man damaa bëri kersa xam nga te man man bu man su ma jegee rek sama yaram day doo daal dama koo xaw a rus. Hmm. xanaa su ma solee nuisel su guddi jotee damay fay lamp rek daw tëdd. fay lamp déglu ma. eh. ah man ma rek mu gis ko mu. lan ngay rus. kon tey ngaa dara wala bolok boog sol ko. déedéet mën naa ko sol mais su balaa may kii damay fay lampe bi. yow lampe bi loo ciy fay jigéen dëgg du fay làmp da ngay am fi làmp di seen teg te jikka jàkk nga def sa yu baax muy gën a xolam di gën a tojotoo fu mu jëm la bala moo xalaat kenn yow la njëkk a xalaat xool ma mag ci kër gi la baax lu ma wax lay def lu ma waxul def ko ndax maa ko xamal lu ko jéegam yi yëpp xamalul woon xanaa bëggoo topp sama tànk téye sa jëkkër ji téye ko sa loxo. yow xale bu ndaw yaa xam lu mag ñi xam. parce que damay def euh, recherche ni ngay jàngee école di jàng histoire et géographie di jàng euh, euh, di recherche ay lëy les corps le corps et les quatre membres noonu laay recherche man sama mbiru say bokk samay groupe whatsapp xam samay mag ñu baax nag am samay meeru lawbe kat piir ñi nga xam dañoo sëy bañ nome leen man ñooñu laay fréquenté ñu may teg ci axe noonu nag fi mu toll nii li ma jàng dangay ñëw jéem dar ma wàññi jox la ko gratuite man fayeeku ma la dara toppal sama ginnaaw rek xanaa neex na xanaa du yow yaa am coach nii te te te la fay ah? <laughs> ah. léegi su may jël da ngay taxaw. man lu sama yow pour nga expliquer man may def. déglul déglul xam nga lan la nag bu ma teg stress. man jëluñu ma jëlaa nuñ ma yaa lekk waru garu jàmbur jéem a la bëre. waaw ah, déedéet comme nga wax ma defal nii defal nii. man duma la wax dara nii doo. doo assister non man lu sama yoon. d'accord man lay assister man ne maa tëgg combat bi mel ni Aziz Ndiaye man duma promotrice. ah li ngay nii kat kii ba mu lay doxaan man dama koo fekke. waaw mais boobu tëdd amu ci. mais yow xam nga ni ku ñu jox waru gaal. bañ dem ca paaya paaya nodd ne diw ak diw maye nañ leen ci farataag yàlla ak sunna su ma xamee xam ne yow faa nga. waaye umu sax dafa bañ. umu boobu ba léegi bu mu fanaan si parce que umu nee na moom joxe ay instant yi. umu mën a bañ ah waaye nag umu mi yëngalul geen umu eh, na sa naqa dëddu sa bopp dina si yëkkati ko ak umu yow dara yow lijjanti bu ñu paree léegi ñu dem ruq jeeg dama lay wax samay ruq jéegi kura marché la nekk ci wetu Pape Cheikh muy jaay fëgg jaay ñàkkul ne xam nga foofu du dëgg bu ñu demee sama yu baax yëpp dinaa la ko jëndal ba pare nag dama lay yóbbu nag si sama waay ju baax man bañ ma laa présenté sama benn nit muy Adja Lo la reine du cheveu la ne dañuy jël taxi dem ba foofu mu lay jaay perruque yu baax façon perruque boo bëgg na nga vulgaire dama bëgg xale ten noir buy def fa man ngay vulgaire bandi lu kenn mësul def ci kër gi yow laa bëgg nga def ko dénk ma sa bopp sa loxo ëpp na xale bi dafa yar yow neex ngaa ko ah, ci ummi dinaa ko lijjanti. Ah. aha incha allah mën nga libéré ma dem. Mhm. waaw baax nga kii affaire tëdd bi ban tëdd ba yow yaa ngi tëdd gi ba tey. sama du sax nit man war naa waxtaan ay nit joxe sama kàddu yaay woo sama xam ne mooy sama kilifa. boole ko sama nijaay ak sama papa Thiamas jël deux millions jox ko demal nga ñaanal li ma jabar ndeke sama papa un million la jox ñoom fat ki ne un million la ko jox ki ne fii nga toog la toog may waxtaan ak moom mu ne sa papa ñëw na fa andi cinq cent mille ñu leen lu manqué wax leen ma bu leen ko wax pour après sax woowuñu ko moom moo woote xam ne li mu def ëpp na joxewaat cinq cent mille jël un million yi daxañ ko ci poosam dem laaj ko confirmer la même chose ma ne muy wax léegi sam papa mu naan ma non xaalis bi jëluma ko xaalis baa ngi ci bërëb ñu teg na nun xool nu ñu def sa nijaay la du nee na du moom sama tonton defar te ñoom ñaar seen xuloo jàppoon naa ne bataille de positionnement la ku ne di xool naa ne cër bi yaa ko moom ma ne non naa xool lu rafet ñoom ma boole leen ñoom ñaar jox leen ko xam naa ne te comme ñoom ñaar ku ne dafa naqari deret mën nañoo bañ a def yenn affaire yu leen di jox ko samay 2 millions mu sama ne sa nijaay moo jël 1 million man mooy eh, yow li ngay wax lan la ñoom 1 lañ fa joxe. dañoo dóor 1 million bi. mais man sa papa moom dara lu jóge ci man bu ma bett venant de lui mo man man plus rien ne peut me surprendre mais Tafa non Tafa ñemewul li man Tafa foogoon naa ne yëfi ñàkk fayda yi muy def bàyyi na ko ñii duñu sax ay gor. man man yaay gàcce gi ma dal man gàcce gi ma dal takk jabar may ko ñaari million ba pare xeeb ko. ñu dem yóbbu foofu di ma jox fa di fa joxe ay cinq cent mille delluwaat fa joxe cinq cent mille man bi ma waxtaan ak yaayu Kiné dama ne ko woon wax dëgg yàlla man am naa yéene andil ko un boobu xam naa ne dinaa andi lu ñoom ñu rafetlu ko ñu dem joxe cinq cent na ma ni boobu xeet nañu ñu joxewaat ko fa ay yéen di dolliwaat di dolli ay cinq cent mel ni kuy dem di dajalaatu di joxe man ni ñëpp tafaa ma ci gën a naqari ndax man foogoo sa papa bu dee def yii tafaa war a wañ loxoom ne ko du ci dal ñoom bu ñu yokkul waruñoo wàññeeti. waaye ñii ñii ñii duñu ay gor sax. pareil ils sont pareils. gis nga léegi il est grand temps nag que tu penses à toi sacrifice yi ngay def ci ñi jaruñu ko xalaatal sa bopp xalaatal sa avenir jéem koo defar mais ñii duñ sa papa moom man man sa papa xaw ma fu ma toppee ci àddina sa papa jaam pire la. wax naa moom fu kenn nekk damay takk ko nit ku jaar ñëw ci kër gi papa xoolal ni ngay mais nag dafa am loo xamante ne mënuma ko def sama papa parce que mooy sama wayjur mënuma takk jabar te demul ñaani mënuma takk jabar jël xaalis jox ko keneen ku dul moom sama papa kay moo waroon am mat gu toll ni doylu mais doyluwul. lii rek ka tax yenn doom yi ci am yenn comportement yi ñu naan la ay waajur ay nen laa ki ay xeer ak ay nangam gis nga gis nga yenn façon yu waajur yi am leen juddu doon orphelin de père sax a ko gën kii du nit sax waaye Tafa moom dinaa ko réglé ak moom kooku moom moo gën a ñàkk jom ñëpp. sa papa moom il sa ce moom lii c'est dans ses gènes da koo judduwaale mais Tafa war na laa def li yow man dama doon rafetal rek naan la del dem ci moom parce que ba nga nekkee xale wax dëgg lu ne defal na la ko lu baax lu ne defal na la ko may rafetal mais ñàkk jom ji mu ci def moom bu fekkee dafa am problème bu waxee ak yow nga defal ko ko ndax yow bañaloo ko dara chaque jour maa la naan del toppatoo sa nijaay waaye nit ku non man ñii duñu ay sax aadama man xaw ma damaa war a xaw ma lu ma war a def rek benn yoon.